c'est d'opposer à Macky Sall un rapport de force politique boo leen conserver woon votre bloc de Yewwi vous auriez pu dire damuñu dialogue tant que situation Ousmane Sonko réglé wul. ñu dialogue tant que situation xalifa Sall réglé wul. ñu dialogue tant que ces ces ces ces membres euh, de l'opposition yi nekk ci prison réglé wul gis nga lii boo leen ko waxoon. c'est ça qu'on boo leen taxawoon ci loolu ay yéen ngeen bañ a génn rocceeku dem. Ah, boo ah, leen ah, taxawoon ci loolu. attendez boo leen taxawoon ci loolu peut-être que solution dina am. waaw attention. parce que votre bloc était fort. attention c'est-à-dire yow ça veut dire yow tu considères aujourd'hui que ñun malgré tout ce qui s'est passé là dans la rue ci mbedd bi ak dëkk bi toutes ces années là toute la bataille là qu'on mène si on avait dit juste on va pas au dialogue si ces trois conditions là ne sont pas réunies euh, le problème va se mais comment mais comment c'est-à-dire le dialogue dafa doon ridicule parce que tey fi ñëw nga bëgg fee ne da ngay dialoguer y a candidat à l'intérieur d'une coalition mm -hmm. tu prends le risque de les de les ignorer amaan na boo leen taxawoon position boobu dans les pourparlers dans les pourparlers dans les pourparlers xëy na dina jur dara il y a pas eu de oui non attendez oui dans les pourparlers dina jur dara les pourparlers mooy le dialogue non avant dialogue bi dafa am des pourparlers souterrains non non moi je ne suis pas impliqué ah. c'est-à-dire li ngay wax ni là d'accord man man je considère man que Khalifa Sall war woon dem dialogue Ousmane Sonko war woon dem dialogue je considère que Yewwi Askan yi moo woon dem dialogue en tant que Yewwi Askan Wi c'est-à-dire ce qu'on aurait dû faire bu ñu ci discuter woon mooy ne nañu dem dialogue tous ensemble en tant que Yewwi Askan Wi Yewwi muy représenté Khalifa mooy représenté Ousmane Sonko mooy représenté tous les candidats ñu ne Yewwi Askan mooy dem on a trois représentants suñu trois représentants yi bu ñu demee première chose Macky Sall du doon deuxième chose la libération de tous les détenus politiques troisième chose élection inclusive ñëpp ay bokk ci élection yi tous les violats qu'on a posés euh, euh, euh, mu ñu texe ñu def ñu ñuy nekk candidat on les pose sur la table et on dit ça c'est des choses qui ne sont pas négociables si on avait posé le débat comme ça ñu dem dialogue ñu ne kan moo ñuy représenté ñu ne Habib Sy ñu ne Déthié Fall ñu ne Maïmouna Bousso yéen nañu représenté ñeneen ñi kenn du dem ñooñu taxaw ci biir dialogue bi ne ñun lii moo ñu indi diw demul kii lii mooy suñu condition non négociable Macky Sall il y a pas de troisième candidature benn deuxièmement tout le monde participe aux élections liquidation judiciaire yi c'est fini et troisièmement vous libérez tous les détenus politiques c'était ça la position qui devait être celle de Yewwi Askan Wi mais on ne l'a pas on n'a pas été dans la réflexion stratégique ce qu'on a fait c'est qu'on a continué juste à dire écoutez euh, kan moo moo nekk mooy dem dialogue kan moo mais parce que le véritable patron de Yewwi Askan Wi c'est Ousmane Sonko et dès que Ousmane Sonko a dit euh, man dialogue ma ak Macky Sall tous les autres ont se se alignés c'est-à-dire aujourd'hui eh, ah, tey tey bu élection amoon biir Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko mooy mooy remporter ces élections là oui mais mais alors je je vais même te dire maintenant autre chose ça une autre révélation malheureusement cest de Yewwi Askan sauf ñu jouer carte majorité. c'est-à-dire. xam nga lu tax xam nga lu tax PDS jógee yeewu askan wi parce que bu ñuy négocier yeewu askan wi dañoo dem ba benn jamono Ousmane Sonko qui s'était battu euh, en en en en mars bataille mars ba ñi ko soutenir woon Ousmane Sonko a dit écoutez man kat mënumaa ñëw man kese signé te ñi nga xam ne ñoom laa àndaloon du ñu ñëw signé ndoo ak man les gens ont dit oui le PDS a dit man je suis d'accord je comprends vraiment sa position mais par contre ce que je ne veux pas que ça se passe mooy yow nga ñëw indaale ñooñu ëllëg bu ñu amee problème ñuy compter majorité au niveau de kii ñun ku nekk indi benn yow indaale groupe ñëw ko bi yeewi askan wi Khalifa Sall a soutenu Ousmane Sonko le PUR a soutenu Ousmane Sonko en lui disant on te comprend gor nga boo ànd ak ay nit yoo xamante ne effectivement mënoo leen bàyyi ginnaaw le PDS a dit non man su ma ko defee suba bu ngeen indilee majorité bu ñëw ëpp ma ci biir dama am lu ma lu ma leen wax le PDS a préféré quitter Yewwi Askan Wi donc moo tax aujourd'hui on doit avoir tous les réflexes ci suñu biir sauf le réflexe de nous compter ci suñu biir di xool fan mooy majorité bi mais le, la, la, la réalité au niveau de Yewwi Askan Wi et ça que vous l'acceptiez ou pas c'est que ñu bari ci posture Ousmane Sonko. oui libre à eux non libre non d'accord j'ai pas de problème sur ça. xam nga d'ailleurs seen meeting ba place de l'obélisque les différentes prises de parole ñi jël parole yépp dañoo wane seen ñàkk ànd ak posture Khalifa Sall de manière très claire ou de manière euh, nuancée. wane nañu seen ñàkk ànd ak posture. Euh, moi quand la parole. a été mis en minorité en fait. je dis aux gens qu'aujourd'hui l'heure est à l'unité de l'opposition une unité nag ça se construit c'est-à-dire justement ça se construit autour de ay compromis yooyu taxawal entre yow mi nga xam ne da ngaa am bii intérêt ak kee am bee intérêt à partir de ce moment là boo mënta réussir à faire ce compromis là ñun niveau bu ñu toll effectivement nit ñi bu yoon ni nekk day dafay aw